jeunesse nekk suñu xarit nekk membre du comité exécutif du conseil départemental de de Koungheul di tey ñëw ci commune bu Ida Mouride ànd ak délégation le maire Alioune Badara Ly di ko nuyu di nuyu délégation ba nga xamante ni tey yàlla def na mu ànd ak ñoom ñëw fii yaakaar naa bii mooy ñettali yoon may jël kaddu ci terrain wu Kër Ngaye ñaar yëpp maag moom ñoo ànd ñëw fii bii passé maag Madiaw Mbengue ñoo àndoon ñëw fii fekke jumuma mu ñëwoon ci tuuru Alioune Badara mu tomboon nag beneen final loolu mooy waral ne bépp feet ba nga xamante ni jeunes am nañ ko monsieur Alioune Badara Ly mu ngi def dooleem mu ngi def kàttanam mais mu ci def poosam donc comme na ko suñu naataango waxee sànq ne final feet la mais feetu ndaw ñi la donc en tant que conseil départemental de la jeunesse de Koungheul dama bëgg adressé ay félicitations mais aussi remerciements jëmale ko ci le maire Aline Badara qui ci taxaway ba nga xamantene amna ko pour jeunesse du département bu Koungheul mais amna ko pour jeunesse su commune bu Ida Mouride mais plus particulièrement à la jeunesse de Kër Ne que na metté à contentement man nak damay faral di wax lu bari ci né nit bu lay jappalé dang koy jappalé yow tim Aline Badara mu jeunesse du département bu Koungheul mu ngi jeunesse commune bu Ida Mouride mu ngi jàppalu jeunesse su Kër Ngay donc maa ngi ñaan jeunesse bi ñuy taxawu ko ñu taxawu ko comme raw nu ñuy taxawee ñu ci suñu xewlee man yaakaar naa loolu muy ànd gor ay nit suñuy ànd su lay jàppale da nga war a jàppale bu baax a baax a baax ñu toll ci monde ba nga xamante ni nag information yi dañ koy truqué information yi dañ koy changé loolu jeunesse yi bàyyi ci xel bu baax a baax a baax a baax Amadou Wilane vraiment kontaan naa bu baax a baax mënoon nga wax ci turu. commune Ida Mouride di nuyu aussi El Hadj Amane Ndao ancien wax dëgg yàlla de nit ku am ngoro ngi nii nit ku fonk kóllëre ngi nii ndax boo gisee man ma ko ñàkk wax doomu aadama lu mu la defal rek boo ko waxut da ngaa kiñaan ndax nit li ma toppee moom ci moom la waaye nekkut ci man ko am kóllëre ngi nii sant naa gërëm naa di ñëw ci Badou. wax dëgg yàlla kontaan nañ kontaan nañ bu baax a baax su kontaan doon weesu kontaan ñu ne suñ kontaan te weesu na kontaan ndax depuis keroog ñu ñëw wax la ko nga ne ñu waaw ba léegi dañu la ci yaa ngi bàyyi xel te lépp luñ doon njort bi nga ñëwee da def lu kawe suñ njort kon ñu ngi lay sant aussi di la gërëm di la fete la yow kóllëre di la won ne la en tout cas waxoon nañ ne fas nañ ak yow kóllëre dañ koy fetliwaat fii suñu bokk Mbadou fas nañ ak te incha allahu rabbi gisuñ la koy dindi te suñ la ko gisee wax wax nañ la ko te Madiaw wax dëgg yàlla tamit danga nga ñoo xam ne ay liggéeykat lañ ku ci mel ni monsieur Madiaw ak Dramé Thiam ndax nit kuy dajale boo ànd ak ay tasaarekat. ci turu maire moo sekk. bu kër ngay mbay wilaan ñu ngi nuyu bu baax di rafetlu dalal bu ñu dalal fii ci dëkkam di suma papa amoon ndaw maa ngi nuyu bu di suñu papa bu maa ngi wax nag ci turu maire moo seet ak délégation bu mu yëkkati mu ñëw defal defalu ko kenn parce que su duggee ci commune bi di fi def dara kon maire ñoom ñëpp wax dëgg yàlla man xeebuma leen te xam naa seen liggéey kon nag gàcci ngalaama maa ngi kontaan bu baax li xale yi taxaw ñu ne fu ñu xaw foofu la ñuy xaw fu ñu teg suñu tànk foofu la ñuy teg seen tànk kon nag duñ def loolu jërëjëfal leen rek maa ngi noyu jigéen ñi kër nga yëm nag waxuma kenn maa ngi noyu xale noyu mag noyu ndaw man de baru li yàlla fa def rek ma bëgg ko te bëggee wu ma ko dara nag lu may fu ma ko sopp rek ku wax moom def naa comme li ma xaajale moom danaa watu gaay bi ko peer lu ñuy ñaan Amadou Ba mu gañe si koom jàmm réew mi nekk si jàmm loolu la ñuy ñaan yàlla yal nañu ko yàlla defal barke Seydina Muhammad sallallahu waaw di wax ni it ah, lii moom mbégte rek kontaan mbégte rek kontaan lu ci nit mën teg lu may mbégte ak kontaan ba du yàgg na ñoo defal fii final man jigéen bu xeebu laa di xale bu ndaw topp ko waaye su ma ne ko ba du xoolee kër nga yi bu gënee lii wax nañ ne nang ko nang leen ko dana ko tëgg ndax defal na ma ñetti final bii mooy ñeent kon nag gàcce nga laa ma di nuyu imam di nuyu waa kër ngay yëpp góor jigéen mag ndaw kom ni ma koy waxee di yóbbante nuyoo ci sama yi di nuyu waa son kër ngaay bi yëpp soon kër ngaay ñu ngi nuyu waa kër ngaay Touba Taba daaru Mbambara daaru wolof daaru Cégeen sibi noxo ñooñu waa soon bi ñu leneen nuyu liggéey bi ngeen liggéey rafet na lool nuyu beral ndax bu ñuy taxaw fii yàlla moom la ndax li may faral di wax soonu Idi Mouride commune Idi Mouride xale yi fi ne dañoo seqoon démb ak barki démb jàmm ak salaam kon bu ñu amee programme fu ñu ma fi woo ma wuy ji bu jot amee

sama xol sedd na ma di la ko faral di wax du ma jay kenn ndax li tax du ma jay kenn fi ñu nii yàlla laa war a gën a ragal ci doomu aadama te li may dundee yàlla moo ma koy jox du doomu aadama waaye wolof njaay na dafa am lu wax ku ko def ku ko wax la bëgg lu dafa wax lu xew di njàmbat département bii xale yi dama bëgg a wax yéen lii ci taabal ji ñu def ko fas cekkeen ngeen bii mooy ñeenti yoon ma di ko ngir dégg gent paate di ko dégg luur di ko dégg makk yop di ko dégg saali ah badu gàcc gaalaama waaye ngeen xam nag ba du ñëw fi ay jàng ñëwut fi daayira dañoo wax ne final final ay xale koy def te jamono yii ñu toll dañ ne soixante-dix wala quatre pour cent yéen la kom nag yéen nga badu nangu leen ko ne yéen la kon na yéen nee leen badu yow la ndax li tax ma wax loolu lii ku ko xamut ñun ñi ci jaar di jënd ay seede mayo xam ne walooru ne fii xam ne walooru coupe xam ne ambaloog yi loolu nag soo ñëwee ci nit mu di la ko defal wax dëgg yàlla ëllëg bu taxawee na la defal ma su ngor amee defal ko monsieur le li ngay def ci département bi ñu ngi koy dégg ñu koy gis bu ñëpp defoon ni yow Amadou Ba bu tëddee nelaw ndax li tax ma wax ko dañoo wax ne avancement leen wax développement leen wax kuy suqali leen wax waa doomu aadama nag la muy yëngatu gannaaw yéen seen choix mooy football. fu ngeen fëgg badu fekk leen fa jox leen alal jox leen seeni mayo waay waay waay ma su badu na Amadou Ba la nee na Amadou Ba la su ne Macky Sall la ngeen ne Macky Sall man kat loolu laa xam ne mooy ngor mooy jom te département bii sama baat ca kaw suñ amoon ñaar ñu mel ni yow président Macky Sall Amadou Ba bu ñu tëddee nelaw du pour jaay la de ndax sama doom ji ngay tollu du ma la jaay du la nax du la fenal li ngay def laay wax wax naa ko place Maam Sow am naa yaakaar ne am na ñu wax seede dama ne département Koungheul bii fekkee ne leaderu département leen wax badu lii la ndax lan mooy leader du dama ne 81 mu léegi maa ngi politique leader département mooy lan mooy neuf communes yi fi ne nga dem fa dugal sa loxo dajale ya fa ne di fa ñàkk sa alal guddi ak bëccëg du jàkk du juma du daayira du lépp sa loxo ca loolu mooy leader du département moo tax man yaay leader du département bi leader du région mooy muy Ablaye Sow Ablaye Sow bu région yëpp doon def ni muy def Amadou Ba bu tëddee nelaw ndax mu ngi fépp waaye bi mu nekkee fo nekk ci région bi yéen ñi nekk ci département bi yow yaa ngi fépp kon jërëjëf loolu laa bëggoon a wax guddi na waaye nag mënuma ko ñàkk a wax di sant nag waa département Koungheul rawatina ndaw ñi ak mag ñi ñu ngi leen sant di leen gërëm xam naa ko gis ma taxaw fii daana jaaxal waaye bu mu la jaaxal xale yee woote te maa ñoom fañ tàgg woon rafet kon fuñ ma woo ma wuy ci leen rawatina ñu ne bat yow leen ko tuddee jërëjëf wasalaam population wu Kër Ngaye maa ngi leen di nuyu di jël nuyoo bi nag di ko toog ci loxo ki nga borom monsieur le maire de la commune de Ida Mouride mon ami et frère El Morsek di nuyu l'ancien maire de Ida Mouride di sama papa Amath Ndaw di monsieur le président de la zone de Keur Ousmane di nuyu sommité yi ñu fekk fii ci Kër ngay yëpp di nuyu la jeunesse de Ida Mouride rawatina nag la jeunesse de Kër ngay Kër Ngaye suñu fi ñëwee mënuñu ñàkk a fàttaliku suñu baay suñu wasila suñu sëriñ alaaji Ali Wilane parce que dama moon yéene su ma dugg see Kër Ngay balaa may ñëw ci final bi njëkkee fa ziyaar ko doog a ñëw comme yàlla def na ñu guddee munuñ ko woon def moo tax ma ne nañu ko ñaanal doog a wax lépp lu ñuy wax donc di nuyu bu baax a baax jeunesse su Kër Ngay ñëw bi ñëw mbégte la ñëw bi ñëw bànneex la Kër Ngay suñu fi duggee dañu ñëw fi ñu war a ñëw rawatina nag ñu ñëw fekk fii koo xam ne kenn la ci man muy madame le maire Mariama nga xam ne tey kenn la ci man donc mu nekk fii ci Kër Ngaye di jambar lol ci wetu monsieur le maire Mor mais aussi di jambar ci sama wet muy ne tey jigéenu Kër amel nañ ko njukkal parce que bu man ñaari kàddu yi may wax mooy monsieur le maire il nga dimbale jigéenu Kër Ngay ba tax na maa ngi annoncé fii ne may naa jigéenu Kër Ngay machine wal boo xam ne dinaa ko teg ci loxo Mariama mu ñëw jébbal leen ko ndaw ñi suñu papa ama ndaw dafa wax lu am solo defe naa ne ñun ñoo bokk suñu département muy département Koungheul ñoom nag wasila ci politique suñu wasila ci politique nag mooy président Macky Sall moom la ñu àndal ba tax na duñ ko rus a wax fenn te duñ ko ragal a wax fenn Macky Sall bi ñu àndal joxoñ ñu ki nga xam ne mooy Amadou Ba ñu gëm Amadou topp Amadou fas yéene liggéeyal Amadou nit nag suñ la dénkee mbir dangay seeti ñi nga yaakaar hmm. wolof daf ne naar bi dañ ko pes mu wëlbatiku jublu gànnaar yooxu ñu ne ko loo ci jublu mu ne falaa yaakaar wallu kon yéen ndawu kër ngay magu kër ngay jigéenu kër ngay ñu ngi leen di tàllal loxo di sàkku ci yéen ngeen gungee ñu ci suñu liggéey suñu liggéey nag du dara lu dul fal au soir des élections notre camarade Amadou Ba loolu nag yéen leen yaakaar ngeen gungee ci yéen ndaw ñi da ngeen wax lu am solo da ngeen soxla kan ba dara ñëw jàppale leen loolu mooy sama wareef mais yéen seen wareef mooy ñun ñi nga xam ne su seen bët xonqee ci ñun ngeen di ñëw dafay jaadu nag suñu nekkee ci dara ngeen jàppale ñu ci loolu kon ñu ngi tàllal sañuy loxo di sàkku ci yéen ngeen gungee ñu jàppale ñu ngir ñu mun a fal suñu kandidaa Amadou Ba au soir des élections ci palin goo xam ne du am benn naatable ñu ngi am yaakaar boobu ci yéen di ko sàkku ci yen gëm naa ne nit ñi ñu ngi naan réew mi yàqu na ndaw ñi nangam nangam mais man li ma gëm mooy ndawu département Koungheul bokkuñu ci loolu li ma gëm mooy ndaw Kër Ngay bokkuñu ci loolu parce que nag ñun dafa am lu ñu baaxoo mooy kilifteef kilifteef la ñu baaxoo fii ci département wu Koungheul ñun bokk ñoog ndaw ñi nga xam ne amuñu kilifa ñun li ñu gëm mooy fi ñu jëm pour ñu yegg fa il faut suñuy kilifa ñaanal ñu il faut suñuy kilifa gungee ñu loolu nag suñu ko bëggee dañuy topp kilifteef kon gëm naa ne département Koungheul incha allah yéen di ngeen delloo buum ci mbooy mbooy ga mooy jàlloo kilifteef ba mu mot sëkk dañu bëgg liggéey bu rafet jërëjëf jërëjëf dañu bëgg rafet liggéey bu rafet bi nga xamante ni président de la république ci fukki at ñaar yi mu fi ne mu sumb ko fi ba lawtan bi ñëw fii ci département wu Koungheul ñu bëgg lawtan boobu noonu war a mun a wéy ak ki nga xam ne Amadou Ba parce que tey nal bi rëy na sumb bi na muy di yaakaar lépp di njëriñ ñu bëgg loolu antu tepurmu pour mu antu tey daf ne ne ki ci gën a gaaw mooy Amadou Ba falu fii ngir mu yeggali président de la République Macky Sall. jërëjëf. Dieye jërëjëf jërëjëf ku nangul yàlla dogal rek doo sonn sa àdduna kon vraiment loolu laa ne woon dinaa ko wax tuuti ci politique parce que ay way politique la ñu way politique nag fu mu dem fu ne dana ci profito li wolof di wax yettaale boobaale moo tax ñu buggoon ko ci wax en tout cas Ousmane am nañu mbégte bi ñu tuddee ñuy dalal sa xel di la wax ne saa yoo ñu woowee pour ñu jàppale la ci loo xam ne day bégal ndawu département bi muy yow président de zone Kër Ngay mais aussi président de zone bu mu munta doon ci département wu Koungheul suñu wareef suñu sañ-sañ mooy ñu ñëw tontu ànd ak yow jàppale la gunge la ci loolu donc ñu ngi am mbégte lool ci jàppale si la ngir nga motal loo xamante ni tey ponk la bu la ndaw ñi sas di sante bu baax baax vraiment li nga ñu tànn ci tànneef bi di remercier ñi ñu fi fekk ñep les représentants du maire Mortala ñew na fi mok Mariama ak ñom maire gay ñuy samay kóllëre aussi ñew fekkaleel si mais fekkale sel ñu ci ndigalu maire morsek mi nga xamne dafa am ngànt woo na ma ne ma dafa am ngànt di remercier suñu baay Amath Ndaw aussi ci teewaayam mais aussi di remercier sama rakk sama xarit Elimane mbay Elimane gis nañ sa taxawaay ci département bi vraiment loolu mbégte la ci ñun te fierté la ci ñun jàpp naa ne bëri na ay commerçant ci département wu Koungheul mais ndaw lu melni yow nek commerçant di jël alalam di taxawu doomu département bi defe naa ne ba la sante la ñaanal la di sante ñëpp di ñëpp fait am mbégte benen bi yoon comme nima ko ont fekk ndawu commune Ida Mouride mais aussi fekk si ndaw moy man dama wasila sama wasila président Macky Sall président Macky Sall dafa woote jalo muy loo xam ne lu logique la parce que réew su demee ba lépp jaxasoo waxtaan mooy liy dalal dañuy fàttali ne la guerre mondiale bi mu demee ba war a jeex defe naa ci waxtaan la mujjee bépp jafe-jafe ci àdduna dañ ko war a waxtaanee ngir gis ci yoon président Macky Sall rëdd yoon wi ne nañu waxtaan Wote dialogue niki lundi inshallah centre de conférence Abdou Diouf woo ci acteurs yi nga xamné ñom ñoo ngank mbir mi pour ñu waxtané ba paré nak ne lu am solo moy dañuy wote waxtaan waxtaan suñu biir suñu déggowé suñu biir alhamdulilah ñu soumettre ko conseil constitutionnel suñu déggowul suñu biir it ñu jébbalaat conseil constitutionnel mbir mi mu trancher àtte kon defe naa ne taxaw na taxawaayu kilifa taxaw na taxawaayu responsable taxaw na taxawaay bu mot sëkk kon man en tant que un inconditionnel du président Macky Sall taxaw déglu ko lay def ba mu rëddal ma yoon wi nga xam ne moom laa war a jaar mais en attendant terewul moom ki mu tànn muy Amadou Ba muy suñu candidat maa ngi ci ginnaawam di ko liggéeyal di seet samay mbokk di taxaw sàkku ci ñoom ñu jàppale ko ngir mu mun a am pal goo xam ne du am benn naata. ci ñu ngi ci toutes les façons xam nga dañuy faral di dégg ci presse bi wala à travers les réseaux sociaux ñu naan les responsables di Benno Bokk Yaakaar jubóowuñu kenn ku ci ne yaa ngi sa boor mais li ñuy fàtte wax wala li ñu dul wax mooy kenn ku ci ne donte yaa ngi sa wet. mais il ngi a lu jox victoire ndam lu jox ndam suñu coalition muy la coalition la grande mouvance présidentielle defé li am solo cette somme d'efforts là fournie par tout tout responsable nous permettra demain à coup sûr d'accéder à la magistrature suprême une fois de plus tout le département Euh, parce que dañu am suba ndaje moo xam ne dañ ci fas yéene waxtaan ak suñu askan ci tolluwaayu réew mais aussi ñaax leen pour principe wala taxaway bi nga xamné mom len wara a am ci li nga xamné mo xew ci réew donc lolu ñu ci wo képp kuy responsable mais aussi di ci wo képp kuy sympathisant président de la république Macky Sall suba len ko fas yéene def ci Koungheul inshallah rabbi ñu bëkk def mu nekk un grand rassemblement suba à partir de 17 h